saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa installation di nouveau bureau du CNG bañ doon amal démb foofee ci arène nationale bureau CNG bu bees ba Bira Sène moom ministre Matar Ba démb la ko doon installé ci arène nationale mbooleem membre yi mu tabb bees démb installé nanu leen jàpp ci le président chargé de la lutte avec frappe Maysa Ndiaye jàpp ci le président chargé de la lutte sans frappe Manga 2 fi nekk nii nag c'est officiel Alioune Sarr dem na yoonam ñu gis ne la fi jógeeg la fi ñëw benn ak Alioune Sarr samedi ak la bés doxul ci diggante bi moom Bira Sène moo xam li ni mel ne maag Alioune Sarr kenn lañu duñu ñaar président Alioune Sarr mi fi jóge mooy man maay moom kàddu yi ni mel nag ba mu ko yëkkatee dafa dëggal li nit ñi daan ruumanaat ci suuf la axlu lamb doon ruumanaat ci suuf mooy Alioune jóge na fi puleem la fi teg ba Bira Sène li ni mel nag ñu bëri dañoo ne mbir moomee bettu leen woon moom la ministre Matar Ba bëggutoon ma yem foofee ndax faaw mu leeral mbir ma mu leer kàddu ya président Bira Sène yëkkati dafa mel ni da koo xaw a leer la mu teg ci loxoy Bira Sène moom la leen benn mission lan ko dénkoon mission lan la dénk boo toppee ci tànki Alioune Sarr fas yéene fee def lim fi def mooy échoué e nga li ñu la dénk muy mission te di ko xaar ci yow mooy nga def fi lu raw li fi Alioune def waaye bu dee da nga ñëw topp ci tànki Alioune Sarr day nekk copier-coller day mel ni coono yi ñu daj yëpp changement amu ci rax ca dolli moom Matar Ba ne ko ay ca mission commencé na doxalal lépp luy conflit ci lamb ji bëgg naa nga fas yéene ga ñuy jiite waaye démb joxante nañ lu nekkoon coow lu nekkoon seen diggante dañ la ba jeex ta fi mu nekk nii lépp lu nekkoon xiiroog ngaayoo ci biir làmb commencé naa faju mbooleem ñu ñëwoon ci bile installation bëggoon ngaa gis membre bureau complet waaye bés boobee li muy nekk bés bu rëy ci làmb it am na ñenn ñu ko wute ñoom ña ministre ba amoon yaakaar ci ñoom ba tànn leen démb ci installation ba gisuñu leen ku ci mel ni Moustapha gisuñu ko démb ku ci mel ni ko fa démb père Bécaye Mbaye dafa absenté démb Yaxya Joob moom it kenn gisu ko moo waral journal ba xëy samp laaj ba xam ndax Yékini va-t-il quitter le CNG bés bu njëkk ba ca ministère moom Yaxya Joob Yékini kenn gisu ko kenn déggu ko ñaareelu bés bi di installation ba kenn gisu ko kenn déggu ko la laaj nag mooy Yaxya Joob Yékini est-ce du daa bàyyi CNG ba ka bàyyiwul xew ma jàll te sànniwul ay kàddu mooy la mu xamle muy ay tàllal naa la loxo fa nuy jeexale mooy ca fusion ba diggante écurie Fass ak écurie Ndakaaru moom suñu papa Kati démb ca installation président CNG ba ba ñu ko laajee la mu xamle mooy mbir mi projet képp la dama bëgg ñu xam ne mbir mi projet la ñu ngi ciy dox waaye dara sotteegul la fusion entre l'écurie Ndakaaru et l'écurie Fass ce n'est projet jërë ngeen jëf mbokk li moo nekkoon li gën fës ci ti yéenekaay ñu leen jox di ba ëllëg incha